depuis la sortie de Adji Sarr me Sarr nag kenn du présenté ci jaar l'histoire décrire na Adji l'histoire là, wax waxuma ken l'histoire moi décrire ci fu Jar, que c'est une fille bo xamni jarjaram jaar-jaaram daa bëri ay tâche ak taq ban waaye loolu yëpp du sax jugement jugement ñi ko xam la ñoo génn ku ci nekk décrire ban xétu jigen la respect buñ am ci jigen ni sax taxna duñ ci sori ndax fu am lu bon rek am na ku bax comme jigen ya ngay gor di bax ñu xolé ko ñi nga xam ngay gor di bax tay buñ soxla dara tak sen digg dem liggey fas jom bañ ko wékk ak a wéer fu yomb ak fu nooy depuis Adji Sarr bu mu defee bi ci médias occidentaux très sincèrement Sonko mi ngi subir tooñ gu metti Sonko mi subir manqué respect bu doy bu ko ay xale yu tekkiwul dara wala ay mag yu tekkiwul dara ci askan wi du saayir du baatin du ci jàng du ci liggéey du ci dara lu ñu mës a lu ñu mës defal askan wi ñu ngi utilise médias yi di manquer respect un leader politique un leader politique Sonko ci jaar-jaar liguel na Sénégal ci fonction occupé na ay fonction yu kawé ci état bi yo xamni du politique du ay poste politique jang moo koy joxe ak xam-xam mu occupé ko à travers jangam ak ay diplôme Ouais, mi civil. manam, ay doomu adama comme ni ma ko yi tekkiwul dara di xey suba ba guddi di saga sonku di waxal wax ju ñaawa ñaawa ñaaw di waxal wax jo xamni ni ba suñu jonn yàlla justice waxul lolu ba suñu jonn yalla tay justice taxawul ben yon accuser Sonko ne ko da nga violer wala da nga ki wala quoi que ce soit. Sénégal rek la gis justice bu yor ay dossier enquête sax dafa ko ay nit yu am fit yor yor sen làmmiñ bàyyi fële dossier bi bàyyi fële enquête préliminaire yi de la gendarmerie di génn yor seeni euh, internet di japp nit ki di ko accuser ñom sen bop comme ñom ñoy juge yi di ko accuser di ko saaga ay nday di ko wax wax ju ñaaw te nak Sonko papay jàmbur la Sonko kilifala la Sonko dafa yar ay soxna Sonko am na ay dooma Sonko am na soxna am na ay dooma na kenn imaginer ñu jàpp sa baay di benn jigéen bu mun a fen mun a yàq dar bu ñu xam boo xam ni de mœurs légères am lu mu accusé justice tranché gul waxagul ni dëgg amul lenn ci kaw suuf lu wax dëgg la ay nit taxaw di ko dëggal ñoom di wax di wax ak manque respect boo xam ni bu énorme bu énorme kuñ ko fi defoon sa baay nga rey ko kuñ ko fi defoon sa maam nga rey ko kuñ ko fi defoon sa mbokk nga jot kooku da nga koy rey da nga koy rendi da nga koy tëral nga rendi ko te nee nañ justice am na Sénégal ah ñu ne nag justice am Sénégal ab nit droit accuser accuser nit à travers benn fréquentation ab nit génn fa accuser nit ci lu doy waar ne qui da ko doon violer da ko doon accusation mu yem accusation preuve de du photo du vidéo du sperme du du du du du hymen buñ fëq du dara teguñu ko ci benn preuve ay nit yu tekkiwul dara nekk ci internet bi jàpp Ousmane Sonko indil Ousmane Sonko bàyyil Ousmane Sonko di wax ay wax yu ñaawa ñaaw ay wax yu salte ay wax yu salte ay média di leen promouvoir pour ngeen xam ni fan la dëgg ji nekk ku ànduloon ak Ousmane ko jàppale ko te ànd ak moom te xam ni fen gi moo nekk fële yàlla moo nekk di xare ak seytaan seytaan moo ëpp nit fuuf mais dëgg bi yàlla moo koy mujjee tey jii aji euh, saar ñëpp xam nañ ni nguur gi la àndal ca nguur gi la féetewoo ñenn ci ginnaawam weesuwul nguur gi ay nitu nguur gi ñoo fa ne ñëpp ñu ànd nguur gi dem nañ ànd ak Adji Sarr nguur gi nag justice moo moo ŋënk nguur gi te justice tranché gul te justice enquête sax defu ko ko jiiñu ko Ousmane Sonko waxul ne Ousmane Sonko la amul lenn luy prouver dara ci ne Ousmane Sonko la te ay nit ñi ngi taxaw di saaga Ousmane Sonko matin midi soir di ko waxal lu ñaawa ñaawa ñaaw on ne peut pas imaginer lu mel ni Seneweb Seneweb bërki démb ba léegi mi ngi dagg benn benn benn jàgg benn toxkatu ancien toxkatu yàmba benn naankatu sàngara naan na sàngara ba luñ tuñu uh, lang benn maire jàgg yooyu jéegu jàgg yu yàgg yooyu ancien jéegu jàgg yi taxawaalu taxawaalu ba seen taat yi tàng tekkiwuñu dara du ci liggéey du ci entreprise du entrepreneuriat du ci dara ay tiaga lañu won yu yu féroce seen ab dañ ko tiagatu dem ba perte jur ay doomu solar ay bandi ay fakman yu deful dara ci askan xey yor sen yor yu wër ci internet bi mais di wax di n'importe quoi japp ab nit ko xamni li un leader politique lu day ni Seneweb yor amul ben respect ci ñom ay duul liste lañ ñu dara

parce que man moom du ma sénégalais bi ngay jàpp di toroxal di ko noot di di saagawaate di wax wax ju ñaaw ma lay suivre du la suivre téye kii yaay kan yow yaa jënd wala yaa nen ci saasa laa dindi eh, laaj boobu mu effacé wu maanaam man ak ba di tukki la désobéissance civile sénégalais nit ki bu lay la jëndu la il faut pas vivre euh, esclavage l'esclavage nañ ko abolir munoo fe nek nok esclave ben ben site internet bo xamni ne ngone ngoon mi ngi jàpp ab nit diko saga nday matin midi soir di genn ay mbir yo xamni ab nit mo tok ni lan la ñu ne dara ab kat la lan la xamuñu background cagam ab sulaar la woon mandikat la woon toxot yàmbaa bandi la won ab caga la won ben meru caga bu perte soxlo tuñ ko ñi ko doon tëddee nekk nañ ay mag léegi ay paa lañ ay màgget lañ ñooñu mënatu soxlatuñ ko tëddee ay bagaasam lax na xamatul fu muy dem jommi na mu ne moom yéen ñu ne ñu ne lan la tudd mu mu yokk ci makki perte na lépp léegi makki bi la ciy mun a yokk pour mun a am leneen luñ ko mun a mun a mun a mun a mu mun a identifié wu ci makki quoi kon daal jamono jii tonkat yi ñoom ñooy ànd ak président. parce que président moo yor pouvoir ndax dëkk bi amul justice boo buggee tooñaate da ngay dem ànd ak pouvoir bi bu dee yow Mollah Morgan, nga xiif bu ko tooñ Mollah Morgan, da ngay dem ànd ak pouvoir bi quoi pouvoir bi léegi mooy yat mooy yat bu ngeen di armé woo d'accord fii lu jeex amul lu dul jeex amul armez-vous bien du pouvoir armez-vous bien faites ce que vous voulez sànqarayu leen ñu rek japp leen ni bés dina jot dinañ fayu dinañ fayu ala kuli al dinañ fayu par la force la voix par la voix des armes comme ni ngeen koy defee yeen non conventionnel ab dossier buñ jox justice justice wax yooyu yàbbi ci sax ay ni té ko di wër ci média bi di saga ay nit di wax wax fu mu ñaawé rek ñang koy jéem wax mais mais mais Sonko buru dara pa bay jambour la. papa jàmbur la kilifa la dafa yore kër di joxe dépense am ay soxnaam ñu takk ay doomu jàmbur am ay soxnaam teg leen fa comme ku ci nekk ci ñun sa papa ay nit yu tekkiwul dara du ci jàng du ci xam-xam occupé média bi média bi di leen tàllali micro juste parce que tout simplement Nous ñëpp dañoo boole ñoom ñëpp dañoo booloo di xeex ab nit hein? ñoom ñëpp dañoo booloo di xeex ak nit ab nit dossier bu en instruction mais loolu fan la am dossier bu en instruction Sonko ne tek nopi respecter lan mooy instruction nak mom jàng au moins Sonko jàng Sonko mënul don Adji Sarr Adji Sarr jàngul xamul lan mooy instruction avocat am bi nga xam ne jité ko kenn gënu ko malonet. ndax mom xamna lan mooy instruction instruction moy lo xam dañ nek diko xol diko saytu diko chambar warul am benn influence extérieure ñëpp dañ ci war a noppi maanu ci en attendant juge bi par euh, nekk ku partial jël temps enquête ci ndànk-ndànk def ay enquête de moralité def ay enquête am dugg fi génn fi loolu mooy droit loolu mooy droit il n'est pas permis ñu jël ab enquête jox ko ab juge d'instruction mu nekk ci cabinet mu yor bagage yooyu am temps wu di enquête benn par benn moom sax commencé gul enquête sax ay doomu aadama jël te teguñu ko ci dara yoruñu benn dossier man mun xaw ma àdduna kañ la Sénégal yàqu ba nga xam ni ay presse dañuy invité. ab nit bu yorul dossier bu yorul dara ñu may ko quatre temps mu nekk fa spécialement kii nee na ma Adji Sarr de nee na ma bu mu ko tëddee ci suuf wax na ba ne aji Sarr xoolal wax ji ñaaw jooju Sonko xanaa bandi salte la tëddee aji Sarr ba koy tëddee ci perron Adji Sarr mooy na ma Sonko bu mu ko njëkkee tëddee ci perron la ko tëddee est-ce que kenn bu ñime na bëgg nañu taxaw Macky Sall bu ko bu ko bu ko nit ji ñoon viol ne da ko tëddee ci perron barke alxuraan boo duggee Sénégal ñu waxuma la tëdd dañ lay rey dañ lay rey nit bu amul dara ay loxo neen ñëw toog ci ab presse ñëpp di nga ñu ñu lay wane quatre heures de temps amoo benn bagage boo indi matériel benn preuve matériel yoroo ko loxo neen ak gémmiñ gémmiñ ko tooy xap gémmiñ bu yàgg màcc jong ku la xool xam ne màcckatu jong nga quoi ba sa say say ngaam tas maire bu rusul dara waroon dem jaamu ji yàlla dem sàmm say njaboot mais c'est normal boo liggéeyut doon caga boo doonee caga sa sa temps passé da ngay mujjee ci parti politique yi ak taxawaalu ab maire boo xam ne rusul dara amu ci gàcce bépp bandi day ànd ak Macky Sall bépp sàcc day ànd ak Macky Sall bépp bépp jaakatu drogue day ànd ak Macky Sall bépp euh, falsificateur de faux billets day ànd ak Sall bépp jaaykatu euh, foo médicament day ànd mais xool leen ñiñ fi jàpp ñëpp faux docteur boobu noonu ñu fi jàpp Macky Sall la àndal foo médecin boobu Macky la àndal kiñ jàpp ak ay de centaines de milliers de médicaments faux médicaments Macky Sall la àndal moo ko libéré gratuitement mu dem yoonam kiñ jàpp mu yor faux billet Macky la àndal caga bu perte Macky la àndal booy bu sàccoon dossier euh, yeewi askan wi Macky la àndal pale la dem képp kuy bandi salte daal moom Macky Sall ngay àndal képp kuy caga képp kuy makro képp kuy escroc aji saar képp kuy faux les faux passeports diplomatiques ak Macky Sall lañ àndal Macky Sall mo amul ay exemple sax yu ko wër ñi ñi wax ñi ñëpp bandi salté yëpp Macky Sall lañ andal ciaga bu part dem andak ak Macky Sall japp ñu ñun dañuy saga ay ndey dañu menacer bo leen yaakaar aduna fi lay yam billahi gënul leen ñu feros profito leen lo leen mën bo leen yaakaare ni yeen yeen ñu yegg leen rek yeen nek leen rek yor média yi rek di ñu saaga ay ndey di ñu menacer di day sañu digg bopp yi di jàpp ni yéen yéen a moom pouvoir bi yéen a fi nekk. ki ngeen àndal mooy président donc kenn du leen laal yéen a ñuy laal mais ñun mënuñu leen laal d'accord.